asalaamaaleykum waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar man Fatou bindu Seck borom lu fi xew waxoon naa leen maa ngi ñëw te ku nekk naa dal ci sa kaw dem naa ci coiffeuse yi dem naa ci foire yi dem naa ci téer yi tey nag dama dal ci ñaar ñoo xamante ni moom la waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar doon xaar muy ki nga xamante ni mooy Jali salaamaaleykum papa Jali. Ah, maaleykum salaam Fatou Bintou. na def. sant Serigne Touba. waa Sénégal namoon nañ leen. Eh, ñoo leen raw foofu. maa ngi jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy suñu yaay faatu mbay ki nga xamante ni mooy yaay euh, Kara de passage maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu bu baax man tam di leen gërëm di leen sant xam ne ñun waa cees lañ daal Kara moom ngay gërëm noonu nag maa ngi koy gërëm bu baax man yaayam. waa sama émission lu fi xew tey damaa ñëw ci Jali ak Fatou mbay laaj leen lan moo xew waa Jali dañu toog ay at dégguñu la. ñii naan jëli dafa voyage ñi naan jëli new fi lu xew. waaw xam nga ndeysaan nag Fatou Bintou jamono yëpp ñun ñoo ngi doon tukki di dem ko ñëw. di lijjanti ba pare nag di gën liggéey ci musique bi pour parti bi ñu nekkoon ci musique bi ñu jéggi benn paa boo xam ne peut-être que Thiès waa yëpp dañ ci kontaan muy dañoo xame woon Jali ak faatu mbay ci musique traditionnelle. tay ji nañu def musique trad moderne bo xamné dañ ko jagleel seen monde bi yépp parce que depuis bi ko commencé ba légui ñu bëree bëri ñoo ngi wo partout dans le monde di waxtaan ak ñun ci produit bi nga xamné mom lañu paré produit bi mu nak ñu paré ko fasiyéné ko génné le 8 mars euh muy bisu jigéen ñi bu di bis bu bu am maanaa ñu fasiyéné nak ñeu bégal ci soyé monde bi yëpp incha allah. Papa Diallo nee na le mars dafay ñëw pour sargal jigéen ñi le 8 mars da ngay ñëw pour sargal jigéen ñi loolu fan nga koy defee. waaw loolu nag dama ko dama leen a defal benn surprise. muy dama leen a génneel benn album bu huit morso ci biir album bi bu ngeen ko dégloo. bëgg naa Sénégalais yépp jënd ko. mais buñ ko dégloo. ci biir album bi. defe naa ne li ma sargale jigéen yépp ngi ci biir. parce que dañuy wax ne maternelle ñuy wax affaire nàmpal doom ma jël loolu nag def ko ci benn album euh, woy ci witam ay kilifa yu bëri ci biir réew mi wax ci ay nit ñu baax ñoo xam ne la ñu nekkee bi ko ñëpp nekk woon te dañu am leneen waa loolu nga woy ci maternelle nàmpal sa doom dama bëgg nga ñamal ma ci tuuti rek Papa Dialy waaw damaa wax ne yow sama jigéen yow sama xarit sama àndandoo yow sama yaay ngeen baal ma ma digal leen nga jox sa doom yow sa ween wi nàmpal ko boo ko nàmpalee ba mu matal bu màggee yërëm ndayam yow sama jigéen yow sama xarit

ci biir sargal jigéen waaw man nag sama kàddu yëpp dama ko tënk ci jox ko jali rek muy benn kàddu mm-hmm. ndax xam naa ne ñoo bokk xalaat lu mu wax rek loolooy wax bi yëpp mm-hmm. waa man jali dama dégg ñu ni da ngeen a am doom juy way Thiès da ko wax de ak Dakar ma bëgg nag ma bëgg nga wax ma ci loolu te tamit euh, sa doom ndax tamit jël war nga koo mën a jël nga teg ko sa gannaaw wala sa kanam wala ngay woy moom mu def première partie soo moom bu woyee ba pare après nga continuer. waaw xam nga ndeysaan Fat Bintu lu jot dafay yomb. Euh, peut que xam nga dañuy wax ne doomu ñey. ñaanu lu laajul nga koy ñaanal yàlla rëy. bu màggee rek dana toll ni baayam. Euh, cest à na ne ñun actuellement dañu nekkoon ci benn. la musique de parce que gis nañ ne monde bi yëpp kenn ku ci nekk dafa am dañ ko soxla ma kon nañ ko liggéeyaat mu jaral ñu nous ñuy tukki dem ci fu ak promoteur bi nga ak ingénieur de son bi nga xam ne moom produire ak album bi nous muy Modou ñu di nuyu ci passage euh, ñu di gërëm di sant ndax def pour bëgg album bi tollu fi mu toll tay jii ñu liggéey ko nag façon liggéey boo xam ne Fatou Bintou pour ma wax la nekk ci biir album bi yëpp day xaw a jafe léegi damay bàyyi rek ba le huit incha allah bu album bi génnee Ceesuwaay yëpp dañu gis ne seen doom am na lu mu leen liggéeyal am na lu mu def itam ba pare léegi nag wax naa ci cité naa ci itam ay kilifa yoo xam ne ñoo ngi fii ci réew mi ñoo xam ne suñuy kilifa lañu. comme Karakan. Euh, waaw bëri na nag parce que. Euh, woy naa ci Marème Faye Sall. sama jigéen bu baax. woy naa ci euh, euh, Lamine Gassama mii. nga xam ne suma doomu ndey la suma xarit la. woy naa ci leen Diagne sama darmanko bi. waaw kooku de passage leen ah. chéri docteur Ndiaye kooku ma busooy bàyyam. Ah, kooku defe naa ne moom sax mooy album bi ndax moom moo ko commencé. moom premier jour album bi premier morceau bu ma njëkk a woy mooy mat lañ jàng sama darmanko bi mu yóbbaale ma yóbbaale ma boobu nag ba mu ko defaree ba pare moom dafa ma jàppale jàppale boo xam ne ak euh, staff bi ma àndal waa léegi jële ma boobu nga wax damaa bëgg nga may ma ci lu ndaw a ndaw a ndaw ndax yóbbaale bi dafa may daaneel <laughs> waaw gis nga kooku nag moom dama ciy sawar parce que mat leen ma bu so jàng sama darmanko bi mm-hmm. kooku nit ku baax la mm-hmm. ma bu sooy baayam ndey suuf ba la ñu yaayam ndey suuf ba yaayam moomu ibakati baay euh, baayam ibakati ba moom moom lañu duggee école bii ci Thiès mu nekk nit ku baax nag koo xam ne daf ñoo jàppale maak Fatou Mbaye fekk ñu fu dara nekkul mu taxawal fa dara di ñu poussé ba ñu egsi bi fii moy comme ni ma la waxoon rek wax la ko ci sama xarit nek fi witam muy Lamine Gassama ak jabaram jabaram Aysata di nit ku bax ñom ñep lepp lo xam ne ngi ci nek ñom ñom ci biir ma am nak ben staff bo xam ni ñii ñoo ngi féete Dakar ñom ñoo yoré yenn wàll yi muy wàllu communication beeg yooyu am staff bu féete fi ci caisse nga xam lepp luy encadrer jali bañ ñu egsi fii tey jii ñoom ñoo ñu jafeel jàppale ñu ba ñu tey ji ñu si fii ñu egsi tey ñu fas yéene nag def naa ne bu la jotee ci soo yëpp dañu xam ne mais Jali yaa ngi daw de ci yóbbaale ma boobu nga wax damaa bëgg nga ñëw ci yóbbaale ma kay yóbbaale ma yaay man leen ma bu sa jaañ loo wax maa nga ca ay ma ni yóbbaale ma kay yóbbaale ma jaañ ni mat leen jaañ kay yóbbaale ma mat leen ma bu sa jaañ loo wax maa nga ca seeni docteur njaay loo def noonu la mbokk yaayum dëris jabaate maa ngi ñëw. Eh, waay ndaw Samba lii leex na waaw wi ma seen couple bi xam naa yi fi mu nekk da ngeen di profité ngeen def seen Saint Valentin. waaye gis nga Saint Valentin boobu nag dama lay wax dañuy profité ci biir loolu rek waaye gis nga Fatou mbay dama fas yéene euh, ren. ma dafa leen surprise yu bëri. ci kii. ndax kii sama soxna la. waaye léegi sama yaay la sama xarit la te daf ma jàppale ci sama biir liggéey. ah man nag dama déggoon temps yii ci ginnaaw da ngeen a amoon problème ba ku ne dem. waaw loolu moom dégg naa ko nag loolu moom dégg naa ko man ma fit moom. man maa ko fi indi. xam nga loolu itam euh, duñ la duma la ñàkk wax ne la am na lu amoon la. mais xam nga jam ak pexem yalla ak dogalam dede dede ci wer yi lañ wax ci wer yi lañu wax wer yi wer yi waaw ah, eh, eh Fatou bay fer yi amul eh, jam eh oui ma wer yi la ko de, weer yi de wer yi dede dede dede du bu mbéri ba de bu bes bi la de bu bes bi bu eh bu bes bi waa Thiès lu fi xew hmm. dama deg ñu ni Fatou bay ak Jali ci wer wi ah nekkatuñu woon. ah yow ay fi nga ñu fekk. fi nga ñu waaw. kaay ma wax la lan moo waral daje bi. ah daje dama ne la. xam nga lan waral daje bi. jal yi ak Fatou Mbaye yàlla dafa dogaloon. Mhm. suñu diggante. waaw ñu tàggoo. loolu ci jamonoy mbiri la woon. mu am nit ku baax ku ñuy wax faatu Gaye Zak boo ko dégloo ci biir album bi ma ngi ci. mu dox dox loolu ba boolee Jali ak Fatou Mbaye depuis ba mu ñu boolee ba tey jii mosu mm. ñoo tàggoo mm-hmm. ñu ànd nekk ci liggéey bu rëy bi ma la doon wax nii di ko liggéey ba mu àgg mm-hmm. bi liggéey bi àggee nag ma xam ne album boobu nen rek la mën a tudd mm-hmm. muy daje bi muy Jali ak Fatou Mbaye dajewaat nañu bu ñu dajewaatee nag ma am benn liggéey boo xam ne nag fekk nañu ci biir ñu ànd ndox moom ci biir liggéey bi liggéey boobu itam moom it mu def ci këmtalaayu kàttanam ba li mu fekk ñu taxawal ko muy musique bi nga xam ne moom la ñuy dawal mu ñëw liggéey ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu mucc ayib nag dafa naa ne pour man dañuy wax saabu du fóot boppam mhm. mais album bii di ñëw mhm. ku ko déglu da nga déglu surprise yu bëri yu nekk ci biir mais album bi bu la kañ lay génn ko waaw mooy li ma lay wax rek le huit lay génn mais avant le huit mhm. incha bëgg nañu ñoo ñoo ngi préparé benn clip def nañu clip bu mat len jaañ mu ngi ci youtube bi internet bi mu ngi ci télé yëpp mais dañ defrat benen clip bo xam day gunge album bi bi nga xam ne ci ci lewit bi sénégal yëpp dañ ci kontaan wa nee na lewit le album bi di génn mais ñaata titre nga ko bëgga def euh. dang koy def CD nga koy def wala dang koy def 10 morceaux wala dang koy def 4 morceaux non dama ko def euh, CD mhm. def ko 8 morceaux 8 morceaux mhm. defal ko ay flyers defal ko ay poster yoo xam ne gën a tasaaroo ci te bëgg nañu ndeysaan Ceesuwaay yëpp gis seen bopp. Euh, waa Papa Jali man dama naan ndax sa woye sa kaset bi nga jëkk a génne loo ma may ma may ko mbiri hmm. ndax boobu ak bii boobu du ko gën a doon bës. non parce que xam nga wax. cassette. def ci morceau. morceau def buzz def adu def ci àdduna bépp boo jógee ba album déjà sur le cinquième album la. Ah, def nañu quatre. mais loolu la yàlla dogal. bii cinquième bi. cinquième boobu nag ñu liggéey façon de boo xam ne. Sénégal Euh, fi mu nekkoon ak euh, groupe bi mën na yor tey jii di ànd ak ñoom di liggéey defe naa ne bu ñu ko dégg dañu ñoom ñëpp dañu kontaan ci liggéey bi ma liggéey. waa Jali man Fatou Bintou damay laaj euh, Jali fan ngay tëgg ci biir Thiès ak Jali yan jour lay tëgg ci biir Thiès. waaw loolu nag ñun sampaguñu fenn fu ñuy tëgg ci biir Thiès parce que ñoo ngi doog pare Euh, album bi. Mhm. ñoo ngi doog monté groupe bi nga xam ñun mom lañu ñu mhm. di ci liggéey di liggéey ak ñom mhm. euh defe na né comme ni ma la waxee ne la euh, mbéri euh, ni ma inspiré wo way mbéri non la inspiré wo encore way Pollen. waa léegi nag mberi bi doo ma ci may lu ndaw a ndaw a ndaw ndaw ndax damaa nam ngeleju tata Fatou Mbaye mais xam nga pëlel non may ma ci waxuma pëlel tata Fatou Mbaye mbiri daal ndax ñun jamonoy mbiri lañ tommeel waa gis nga mbiri mbiri dama ko defaat remix ah remix ah, kon foofu dina doy waa ci biir album bi mhm. remix mbiri waaw def naa ko parce que dama def album bi ba pare mhm. comme ni nga ma ko waxee nii ñu bëree bëri ne foog ñu ñamalaan leen mbiri mhm. ma remix ko moko def 8 morceaux. Mhm. mu nek album bi nek 8 morceaux. wa legui bu remix bu remix nga ko def nan nga ko defee la mais mais ñu mbéri. wa mbéri rek ba tay xam nga mom mbéri mom du fi joggé mbéri du fi jógee. <laughs> waaw te yalla mako def waye nak nima ma defaree mbéri. ak dialog bi ci nekkoon. Mhm. defar na morceau bu ñu wax polel. polel Ayang <laughs> mai sogalak. Eh, dapat tuh. Dapat tuh. Wih, pada kan lakan mau ipulil. ko kok polel పొలాలు పొలాలు పొలాలు e పాప jali juga <laughs> hmm. ke mbiri dal ci polel wi ba wa polen wa dama wax ne ndake dungal ma na ma njin mhm. ma xale bi le yaay misal salmi ni ma amina ma misal salmi ni ma polel yo jallo jere fatum bay ki nga beug lol ci sa xol bi ba sañoon doo ko bokk ak keneen jigéen bëggul wujju man xam naa jali waaye góor bëggul jamaale waaw ki la jali du la jamaale yee ana jamaale bee denc waa léegi <laughs> waaw wuy ma mbéri de defoon na bës mais polel polel bu génnee Thiès toj Sénégal toj ah, ah, ah. laa ñamal nii rek la ca biir la ca biir mbaa du sabla la ko bënn nga ca biir waaw eh, waa Papa Jali dama bëgg nag nga joxe sa numéro téléphone pour ku la bëgg jot ah. damaa bëgg yow Papa Jali waaw nga joxe sa numéro téléphone. pour ku la bëgg a jot ndax man xam naa ne Papa yi ku ko woo ci mariage dina la wuy si ku ko woo ci ngénte dina la wuy si ku ko woo ci xawaare dina la wuy si damaa bëgg nga joxe sa numéro. waaw yàlla dafa dogal nag nag Fatou Bintou. yooyu fa la ñu jaar ñun. muy mariage yeeg yooyu. mais actuellement dañoo nekk ci benn label boo xam ne. ñun label boobu ñun ñooy liggéey. ñun am na yu bëree bëri yoo xam ne amoon amatuñ ci droit. mais li nga xam ne moom la ñu am droit di ko liggéey. bëgg naa woon ko Sénégalais yëpp ba mu daj. ci biir nag poster yi bu génnee. lépp contact yeeg ñi ñu soxlaak ku bëgg a gisanteeg ñu nag loolu lépp am na lu ñu ci jote ñamale mu ngi ci poster yi bu ñëwee ku ko liir da nga xam boo bëggee jot jali ñen ngay waxal. da nga xam fi nga war a jaar pour egg ci Jali mais Jali moom léegi employé la Fatou Mbaye employé la ci benn groupe boo xam ne moo tudd Jali et Fatou Mbaye. mais ah, man it Fatou Bintou. Mhm. xam nga sànq de man dama bàyyi kàddu gi yëpp sax ak Jali. Mhm. waaye da nga ni ma man xaritu Kara mhm. te Kara moom. amuma ko rek moom ci doom maa ngi nuyu sama doom yëpp nag waaye Kara daf ma yërëm yërëm papaam Kara dafa baax ci man Kara bëggul ma am dara lu ma naqari loolu moom ak lu ma waxadi waxadi dinaa ko wax di gërëm tamit ku mel ni Pape Diagne ak Dundir dama ni la affaire bi bi ñu commencé ba tey ñoom ak ñoom la Pape Diagne nga ma yóbbu hôpital mu ngi may faj mu ngi may ay lu nekk Pape Diagne daf ma koy defal maa nga mi ci torog maa nga mi ci yof Mael Yacine mi ci aldrame yow yaa ni bu la kenn woy rek waaye yow sa woyee ngi sama xel mu ngi sama xol waaw ma kon boog li fi xew moo ñëwoon fii tey ci Jali ak faatu Mbaye Diop mais dama bëggoon comme que Saint-Valentin bi suba la. waaw bëggoon ngeen woy ci tuuti ci mbëggeel yéen ñaar. am na lu ma ko jëndal sax dama ko garder nii pour bu suba ma jox ko ko. mais est-ce que taa Fatou Mbaye bu subaa di nga def robe robe wala nga def sa body bu baax. def ba pare. ah robe bi def naa robe bi yëpp ak yi dama bëgg def nit ñi surprise daal. surprise waaw suba fooy nekk ma fekk si la. sunu kër sa kër. waaw dinaa ñëw. jali ko ne naan looy def costume. waaw man day sekk man xam rek. côté bu ne laa ne dañ def ba mu baax. waaw dañ def ba mu baax incha allah. waaw léegi la. ah damaa bëggoon nga gërëm say xarit ndax li des ci minute bareetul. sama caméraman ab sa mi ngi may def signal damaa bëgg rek nga tàggoo. waaw nga gërëm sa ñi nga bëgg a gërëm. waaw bala may sori. maa ngi gërëm euh, staff bi nga xam ne ñoom laa nekkal. Mhm. ñoom ñoo jàppale yi maa ngi gërëm suma géer ñu baax ñi uh-huh. ñi ci jàpp witam maa ngi gërëm itam suma dëkkandoo yi nit ñu baax lañu lépp lu ma nekk ñu nekk ceeg man di gërëm bi tam sëy latir uh-huh. ndax moom suma doomu ndey waaw kooku mooy borom Thiès info kooku moo jox jël émission lu fi xew jox ko Fatou Bintou mu koy def kon sëy latir de passage maa ngi lay nuyu. waaw ma koy gërëm di ko sant ndax euh, Modou mi nga xam ne mi moom la ñuy liggéeyal. Mhm. moom Modou mi nga xam ne mooy manager bi yore lépp loo xam ne sur le plan international ak extérieur yëpp moom moo lépp. Mhm. moom moom lañ ku bëgg ñu gis ñu moom ngay waxal. Mhm. ci lu bëree bëri. kon kooku itam bu ñu jëlee boole ñu ak euh, Latir. fekk Latir nekk ñun suñu biir nekk koo xam ne sama. xarit la sama rakk la franchement dëgg-dëgg maa ngi kontaan ci yow Fat Bintou encore euh, di la gërëm di gërëm euh, sama caméraman bu ñaawal bi ab sa euh, di kontaan itam ci émission bi ngeen def li fi xew lu fi xew lu fi xew boobu nag bu incha allah bu subaa mooy Saint-Valentin bi d'accord mais gis nga bu le huit jotee da nga da nga da nga gis li fi xew allah jali nee na la wit bu xewee dina dinañu gis lu fi xew faat mbay yow koy gërëm waaw man maa ngi gërëm ñëpp nag li particulier ay mbokk jali uh-huh. eh, eh, eh, wuy huh. ma tata faatu mbay mi jonge naa ah. déggoo ko war a mu naan ma maa ngi gërëm ñi nga mbokk jali waa ah, lu rey mbuum dee lu rey waaw mani boo déggee ma njëkk leen a gërëm dama fee yàgg dama yàgg ak jali am 30 ans dañu yàgg macha allah. ku mel ni bu sekk Daba Seck ak waa kër pàppam yi ci dixième ak jarbaatam yi sëy ca Touba. ñoom Bintu ñoom ñëpp man maa ngi leen di nuyu ak sama doom ji ci kër gi nga xam ne def ma wujju daal. chéri Ablaye Fatim. Mhm. Ablaye ak Jali ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. moom mu jàppale ma rekk guddig bëccëg maa ngi koy gërëm di gërëm nag sama waa koñ bi yëpp ndax ñun keesa ñu bëgg moo tax barewuñu tànk Dakar. dëgg la. waaw xam nga bët day kii day fattu. xel day fattu. Mhm. mais maa ngi gërëm su borom kër gi. Mhm. di suma xarit. di Lamine Gassama. Lamine Gassama. ak euh, soxnaam Aysata. Mhm. lépp lu ma nekk ma nga ca. lu ma jàpp mu jàpp ca di jàpp di ma jàppale bu baax kon Saint Valentin bii di ñëw ma boole la mi nekk euh, Aïssata rek waaw ak Jalle ak Fatou Mbaye <laughs> waaw bëgg rek lu fi xew lu fi xew rek nga defal ma benn single euh, générique boo xamante ne rek su ma koy ubbeeti rek moom laa koy ubbee lu fi xew ak Fatou Bintou damaa bëgg rek yaa ak Fatou ngeen diyal ma ci tuuti rek bu may ubbeeti rek sama émission moom laa koy ubbee. Fatou Bintou am réew boo ca demee réew boo ca demee ma bëgguñu nga dellu am na fi nga jóge woon foofe namu nan la. fat bintu ñoo ngi ñibbee mbëggeel weñ guy las peeru la ñaar ñu koy xëccoon nekku ci njëkk bàyyi gañ nga sa morom Fatou Mbaye bul ma mere ndeysaan weñ guy tawiku la ñaar ñu koy xëccoo ku ci njëkk bàyyi ni gañ nga sa morom war na jali mooy kaay ñu gisi am réew boo demee waaw ni am réew boo ca demee ndakaaru ba fa demee. waaw ni banjul ba ñu fa demee. yow ma bëgg ñu ñu dellu waaye fi ñu jóge woon Cees kaay namu nanu Bintu ñibbisi nanu. war fa kàlla jamaanuwaar Fat Bintu sama cameraman bi ni jamaanuwaar way ana ab saa ngi nii xarit kontaan ci ndeysaan ñoo ngi tàggoo ba baneen yoon ndax nee naa bàyyiwuma kenn fu nekk laay dugg fi ma génn nag tey nii mbayang caam bu 2S nee woon naa la caam Babel dinaa la bàkk mbayang caam moo génn fii barki Seydina Mohamed dina ñëw ci seen clip mbayang caam bu 2S waaw borom yoof apex moom moo jaar fii waaw may fi ma génn nii <laughs> Sidaat Ndiaye sama rak. ah Sidaat waaw. waaw dëkk ak man fii lépp lu ñu gis ci télévision bi rek mu rafet. waaw à part Sidaat. waaw Mbay la ak Aji. ñoom dañ ñu ne loo leen. kon yow fi nga génn nii ku fi jaar. mat leen jaay mat leen jaay. ah kon def nga ba mu baax kon sama gars yi ah. ñoo ngi taab waaw kooku ma bu sooy baayam. kooku Kumba Fall la bokkal ñi ngi tàggoo ñi ngi naan leen baay baay jali neel sama caméraman baay baay dama naan leen xoolal sama gaay big up maa ngi dem maa ngi dellu si xanaa nee naa lu ni fàng kenn du ko jeex ale kon baay baay